nga kan mooy nekk le prochain président de la république entre Kamala Harris ak Donald Trump mais sondage yi joxe nañ résultat yi ñëpp xam nañ man mi xam naa ki gagné mais oui États-Unis non duma ko wax. dama ne la les les élections sont très serrées les élections seront très serrées mais kiy gagné États-Unis xam nañ ko actuellement. su la neexee boo ma joxee enveloppe ma bindal la ko ci ñu sele ko bu subaa nga woo ma aywa. jël deux question ñu tëj ñu tas deux questions jël waaw rapidement oui oui.

s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît sur cette question de l'homosexualité ça n'a jamais gêné le régime en place d'abord Bougane li mu wax du dëgg Ousmane Sonko mu set taxaw di xeex di bokk parce que Ousmane Sonko bokkul ànd sàmm jikko yi man ànd sàmm jikko yi laa bokk on s'est battu pour la criminalisation de l'homosexualité Ousmane Sonko bi ñu demee yóbbul ko projet de loi bi wala proposition de loi bi biñ ko yóbbulee proposition de loi bi moom Ousmane Sonko ñun waa ànd sàmm jikko yi à l'époque biñ ko yóbbulee proposition de loi bi dani te je parle sous le contrôle de mes camarades yi xam ñoom laa bokk bokkaloon ànd sàmm jikko yi ma bokk ñoom ba léegi sax parce que man ba léegi ànd sàmm jikko yi laa bokk biñ ko yóbbulee proposition de loi bi dani sur le principe homosexualité àndul ak sunu aada àndul ak sunu cosaan àndul ak sunu diine maintenant nag seen proposition de loi bi am na yoo xam ne war nañ ko cee xoolaat sur le principe ñun gëm nañ ni homosexualité bokkul ak ñun Sénégal mais nag ni ngeen tëggee seen proposition de loi bi moom Ousmane Sonko à l'époque ni ñu am na ci xalaat loolu moo doon position donc Bougane foofu waxul dëgg beneen bi mooy président Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi mu demee États-Unis yéen a gisal seen bopp ca podiumu Nations Unies un président de la République taxaw di mer. daan ni dafa am président boo xam ni dama ko recevoir dafa maa recevoir ma ne ko dañoo war a dooleel euh, les minorités sexuelles mooy góor jigéen yi dañ leen a war a dooleel mais daf ne ma bu sama waa réew bëggee ñu criminaliser ko dama leen ciy fekk suñu criminaliser ko lo ca podiumu Nations Unies la ko waxee Diomaye ngi ci salle bi moom mi ngi ci salle bi ñëpp xam ne Bassirou Diomaye fay lay waxal dama ni le régime en place du moom mooy légiférer sur cette question mais le jour où le peuple sénégalais voudra aller dans un sens ou dans un autre sens bi peuple bi bëgg foofu le régime bi di jëm wax ji jeex. merci beaucoup donc euh, le dernier intervenant oui. bi dernière question. dernière question oui. oui. waxtaan

man damay dégg am ñoo xam dañ naan yéen da ngeen a mel ni yéen justice bi parce que maa ngi gis bi prés bi bi Ousmane Sonko waxee ci meetingu Ziguinchor bi bi mu waxee ni euh, moom euh, ou en tout cas Tamba en tout cas dans un des meetings wax na ni rapportu Prodac bi rapportu Prodac bi moom jébbal na ko parquet financier mais rapport bi soo ko jébbalee parquet financier bi te rapport bi la parce que moom rapport bee ko tee nekk candidat te rapport bi daf ne am na ñoom ñu ne ko génne ko ñu bëgg mu def loo xam ne su ko defee ñu ne recel document administratif dem jàpp ko moo tax génnewul ko woon à l'époque mais nee na leen am naa rapport bi ñëpp am nañ ko ñun ñëpp amoon nañ rapport voilà rapport bi wax ni Mame Mbaye Niang dafa randal suñuy milliards loolu la rapport bi pro Prodac bi dag yëpp yi waroon a dem am na ci dag yoo xam xaalis ba lekk nañ ko te dag bi xolal teguñu fa sax benn benn benn brique am na dag yoo xam ne lekk nañ xaalis ba foo xam ne ay xale lañ ko waroon a defaral ay tool ak fu ñuy eh, yore seen nag ak fu ñu war a liggéeyee ñu dem eh, dem jël xaalis bi ba noppi defaruñ dag bi mu leer nañ rapport bi wax ko ne xaalis bi dem na mais dag bi amul loolu ñu bind ko mu leer Mame Mbaye Niang xam ko waxal na ko boppam nee na rapport am na. après bi ñu éliminé Ousmane Sonko ba pare def na conférence de presse ne rapport am na ba tey jii gis ngeen ko daw na daw na parce que xam na li koy xaar daw na waaw léegi rapport boobu suñ ko jébalee justice Mame Mbaye Niang dañ koy jàpp loolu mooy dëgg parce que ku sàcc suñuy milliards laa war a jàpp mais wax loolu ça ne pas dire que yaay justice c' pas parce que Ousmane Sonko nee na jébal na rapport bi justice et effectivement mu teg ca ni ñoom ñëp xam nañ dañ leen di jàpp mais ku sàcc alal lay jàpp. te rapport dafa leer naan danoo sàcc alalu réew mi mais loolu ce n'est pas être la justice xam nga lan mooy nekk justice mooy di def comme li Macky Sall doon def di woo justice ni ko jàppal diw di jàppaate di tëjaate di rayaate te dara du leen ci fekk et cetera loolu jeex na actuellement lépp luy xew ci réew mi ci dëgg lay tegu kon rapport bi comme am na ñu ne rapport bi déposé nañ ko au niveau du parquet financier te moom moo war a saytu loolu mais Mame Mbaye xam na ne dañ koy jàpp parce que bu deful woon dara du daw lu tax mu daw dama leen di laaj lu tax maam bay ñaa daw c'est parce que xam na ni li mu def dañ koy jàpp te moo la gën a xam dañ koy jàpp maintenant nag justice ñu nee moom day jàppaate mais c'est normal parce que da ngaa def lu tax ñu war laa jàpp mais wax loolu taxul nga nekk justice donc encore une fois bu ñu def benn amal gàmm ñoom daal def nañ lu ñu war a def dañ leen di jàpp parce que ku fi def loo war def dañ lay jàpp nga jël xaalis bi nga jël gis nañ fi as ndaw soo xam dañ ko fee jàpp mu ne moom fay na 28 millions yi pour pour ñu bàyyi ko mais moom jël woon dara gis leen fi lool. yow ñu ngi la jàpp nga ne yow defoo dara ba noppi dem di fay man soo ma jàppee te defu ma dara du ma fay waaye jàpp nañ ma defu ma dara waaye naa fay rek pour ñibbi loolu wax la na ma ne nañ bàyyi seen caaxaan alalu réew mi ku ko sàcc da koy goqi soo ko goqiwul ci kasa bi ngay dee. merci beaucoup ñu ngi leen di sant di leen gërëm aywa